sama maam keroog tuuti mu say hmm. tuuti mu tuuti mu daanu daanu ci kër gi parce que moom toog gi doomu sëñ Basiir toog ci kaw rek moom mu toog ci kaw maanaam loolu marqué na ko marqué goo xam ne xam nga ne kon kooku boo waxoon dara lu jëm ci sëñ moom dalay rey ndegam toogaay ba loolu mënta muñal loolu di murit hmm. loolu moo di murit hmm. man sama benn maam bu nekk Italie ku ñuy wax maam bàcc jour ba ñu demee mairie mairie bu Touba naan dañuy naan dañoo war a imposer parité keroog pistale la génne hmm. ne sëñ sëñ sëñ bi li bëgg ci dëkk bi kenn du ko waxtaane lu ñuy def la hmm. liñ bëgg ci dëkk bi la ne du lu ñuy waxtaane am di laaj xalaat ak kenn sëñ bi lii la bëgg ñii la fi teg pour ñu kii mairie bi loolu mooy am hmm. amul waxtaan amul seet looloo di murit waaye ku mel ne Cheikh Omar Diagne nga dugal ko ci sa gouvernement. Uh-huh. ay murit wala ay tijaan sànni la carte. Uh-huh. pare génn naan mbay nee na wala sëñ Touba nee na ay uh-huh. naafeq lañ du ñuy murit. loolu ko wax. jibi uh, ban balaa ñuy uh, wëyal uh, ci ponk yi ban jàngat nga daal di def ci mbir mu mais Cheikh Omar Diagne nekk directeur du mois de ay. kàddu euh, démb nag gis nañ ko suba nga xam ne jabal daal na koy def tegaal vidéo ki nga xam ne di moo di sëñ Mamoun euh, moo di euh, suñuy carte la ñu yor dañu xeebal suñu sëriñ xeebal ñu suñu soxla tey ndax mënuñoo ne votu ñenn ci ay murit dina fatal jëmmale ci